jërë ngeen jëf mbokki internet yi dalatalee nag jàmm ba tey rek lycée yi a fës mel na nag ñooñu nga xamante ne seen rek moo di ay candidature ginnaaw rek lu toll ko 19 candidats. ñooñee soo moytuwulee dañuy continuer rek seen po liggéey dañuy rek continuer def seen po campagne malgré na sax kooke di njiitum réew mi jël na ab décret wax na rek dafay ajani kenn li nga xamante ne si rek moo di yooyu la élection waaye nag yooyu la fa mel na nag ñoom dégguñu loolee nee nañ dañuy woy rek di respecter calendrier bi nga xamante ne si ne rek moo am fii si Sénégal kon nag ñoom dañuy dem campagne waajal rek li nga xamante ne si ne moo di seeni i élection mel na nag di Amadou Ba nekk rek mandataire kooke di Bassirou Diakhar Faye moom nag mu ne rek dañuy commencé seen campagne ak leader yoo xamante ne si na rek neemeeku na na ñoom it dañuy wax na rek dañuy continuer def seen liggéey dañuy respecté calendrier bi nga xamante ne si na moom lañ leen sàkkuloon jëm si vingt cinq février fas fal njiitum réew kan nag ñoom dañuy continuer rek def seen liggéey daal campagne jëm si élection 2024 ñooñee di waa Pastef nag ña ngay waajal seen campagne bu baax baax nag dimanche bi ibbi bi nag jëm si élection yi ñu dëgmal njiitum réew ndogal mu daal di jël nag metti ñu bëree bëree ba tax na rek askanu Sénégal dem rek ñu si bëri wax na ñoom danoo dund